sistem la boo xam ne Ghazali moo ko fent benn quartier boroom kër ya ca dëkk yépp waatante ci seen kanamu boroom kenn ku ne fas yéene loo gis mu na ma tas sa këru morom nga taxaw ca ba mu defar am na solo wàccee système teg ko ci coopération a taawun alal birri wa te moom muy jaamu yàlla mu teg ca tamaanoo ne nun borom kër yi na daj kenn ku ne na fas dara du tas kër moroom ma waaw dara du ko yàq loolu lu mat di bàyyi xel la yonent bi ñaari système la fi bàyyi benn bi rëbb na ko benn bi ñaanal la ko bi mu ñaanal mooy diisoo diisoo mooy mag ñu dugg ci néeg waxante yiw ba yiw génn ca ñu jox ko njaboot yi boobu la yàlla def barke bi ci des moo di an najwa déeyoo إنما النجوى من الشيطان إنما النجوى من الشيطان إنما النجوى من الشيطان نياري ماك نيو ديو لا نيو واخ دو جام كوكو سيستيمو شيطان لا بوكول اك ديسو ديو اك ديسو بوكول واو لو متا باي خيل ndax itam danga koy déggee sa jamono te bañ ko déggee démb eh, démb gëléem nga daan war di ko tukkee tey avion ngay war di ko tukkee kon bu ñu nee innama najwa min ash-shaytan la boo xam ni système manipulation lay doon système yu kenn xamul fexe ba gor gu ne nga moom ko te nëbbu ca gannaaw doxul waaw ah, gu ne nga moom ko dañ ma ko defal lii defal ma ko lii nëbbu ca gannaaw gor gu ne nga ni mm, ko manipuler kooku yàlla rek ko moom waaw keneen moomu ko moo di an najwa yonent bi nee na seytaane ko moom innama najwa min a seytaan Sëriñ Aliou Gueye nee noonu ragalu nu iblis ndax négocier naag négocier nanoog moom ba ñett yi munu war a musale musale nanu ko ndax iblis ñett rekk lañ koy ragale mu yàq sunu deru jullikaay walla ndox mi nuy naan walla sunu kurus léegi fexe nanu ba bàyyi nanoog ñett ñooñu yi boo jullee seen der ba noppi ñu ni lemal maanaam bu ci seytaane dëkk boo naanee ci seen potu ba noppi ñu ni dëppal maanaam bu ci seytaane naan boo wérdee ci seen kurus ba noppi ñu ni defal ma ca poos ba maanaam bu ko seytaane laal ñi ñett ku ci seytaane musal la ca des boo dee avocat xàmme di ko mën a plaider waaw la des di ko mën a plaider bu la seytaane bàyyi ak sa sa jaada bàyyi ak sa kurus bàyyi la ak sa potu ndaa lu lew lu lew nekk ci sa biir seytaane du la jax-jaxal ci julli fàtteloo itam la nga war a jox sa boroom ci su kurus yi ñett moom boo ko amee ci moom lu ko neex na defati sa kër kër ga du tas kooku noonu rek la deme bu ko xas am ci seytaane mënatul tas sa kër sa xarit rek lay doon ngeen di copain waaw muy sa copain ngay copain mënatu la yàqal dara jeex na bàyyi na ak sa potu ndar lu lew rekk ay nekk ci sa biir bàyyi na la ak sa sajjaada du la jax-jaxal mukk ci jaamu yàlla bàyyi na la ak sa kurus du la fàtte loolu li la war ci sa borom li ci des nag lu mu ci def rekk avocat bi mën na ko layoo yooyu eh, ñett rekk la bàyyi xel la ndax luy dugg ci biir te lew dana tax jaamu gaaw a nangu moom la Cheikh El Hadj waxoon mbokkam ma ko doon jëw ci guddi te xamul ni Maodo ngi ci gannaawam Maodo ngi sës ci sàkket wi borom bu ko di wax ah këram gi daal ñam yi neexul dara ndax boobu it Maodo amul dépense wax dëgg yàlla mu ni këram gi daal ñam yi neexul dara mu ni ko waaw waaw waaye ak lew mu ni ko waaw waaw waaye ak lew ak lew te doomu aadama lu ko neex wax moo taxoon yàlla wax yonent bi ni ko waxal nit ñi ni fañ ma tëral nekkuma fa walaay ndeysaan wa ma qadarullaha xaqa qadri aada baaxul mere yonent bi rek tax nga jéppi waale yàlla seetal loolu jéppi waale yàlla di ko wax lu mel na xeme wallaay boole leen faf noonu ñoom ñaar yow kay boo bañee yonent bi rek bañ ko moom kese waaye yàlla kay bu ci boole waaw waaye doomu aadama dëgër fitam moo àgg foofu wa ma qadrullaha xaq qadri waaw yàlla ne fañ ma tëral nekkuma fa de wallaay te looloo am buñ ma tëral nekkuma fa waaw buñ ma tëral de nekkuma fa waaw moo ko daan tawatal boppam maa ngi am benn wóllëre tubaab nee na ma man daal bëggoon naa tuub li ma jaaxal mooy seen téere ba xuloo la ca njëlbeen ga ba mu sotti alxuraan ma ni ko buur bi daf nu fekk si ci sunu logique ma ni ko du leneen xali ko noo mel noonu noo koy noo koy wax safaan moom it muy fayu waaw donc góor gi noo koy wax safaan moom it muy fayu waaw laa tanfiru fi lxar magi caaxaan yi bu ñu demee def traite ba bare xaalis bu yonent bi bëggee yóbbu jullit yi ñu naan leen dafa mbóoyu lànk leen dafa mbóoyu